ma Maodo si amoo moroom jëfal nga yàlla sa boroom tagg rasool lu ñépp moo tax Seydil Haaji Maalik ñaari rakk la daan naa fi la guddi benn bi day jàng Faatiha ba Maryam bi ci des mu jàng Faatiha Maryam ba Naasi maudo nyari raka danna filo guddi berni bidai janggof fatiha bakara ba mariam biji desmo mo janga fatiha mariam banas moo tax na filo Ben benn ni da koy toppandoo waaye da mujj selmal maudo ni ko dëng koo man nga suma kabare sama bopp bi ma nga jëm juróom ñaareelu sama tànki juróom ñaareelu suuf kenn du Seydil Haaji Malick te su paree ca naafila rek nga dégg nodd moo moo daan noddal yonent bi der bu ñu la yoroo boroom ahadun ahad ndeysaan bilaal moo daan noddal yonent bi dir bu ñu la yoroon boroom ahadun ahad wax leen bilaa moo daan noddal yonent bi dir bu ñu la yoroon boroom ahadun ahad asan waxal bilaa moo daan noddal yonent bi dir bu ñu la yoroon boroom ahadun ahad ay bilaale bilaal moo daan noddal yonent bi der bu ñu la yoroon borom ahadu ahadu kan moo fi gën a bëgg bilaal moo daan noddal yonent bi der bu ñu la yoroon borom ahadu ahadu wax leen bilaal moo daanoon dal yonent bi der bu ñuul la yoroon borom axadun axad moo tax bu waxtu wi jotee rek nga dégg bilaal akbar allah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

daan noddal bi der bu ñuul la yoroon borom ahadun waaye ku def ni yàlla nga fekk déwén wax leen Bilaal moo daan noddal yonent bi der bu ñuul la yoroon borom ahadun ahad maam Maodo si amoo morom jëfal nga yàlla sa borom tagg Rasuul lu ñëpp jël tàng ba yonen ba tàmbalee nekk di leer nga tàmbalee xilaasu zaab bi jël nga leen fi leer gi jaar wax nga ñu ko wax nga ñu kiiraay mu doon sabbaale yàlla kii bindoon wax nga ñu geej yu ko dogoon na mu ca sa way nga ko wax nga ñu abraham ki ñayam wax la ko mer lo way bu mu jëm ca kaaba ngir mabbu moro o moro o moro أمراء أمراء أمر فتيت وينا تفلني أمراء أمراء أمر ما أمر ما أمر من وينا boo tuddee maam Cheikh Omar Cheikh Omar waaw taalibeem yaa nga naan taal borom jihaad ji man bëgg naa la oh. man way deflini for today maam Cheikh Omar Cheikh Omar wa talibe bi yaa nga naan taal borom ji aat ci man bëgg naa la Omar man way naa tat wayna Omar wayna wayna la baayu cerno Cheikh man wayna la boo seenee Cerno Cheikh muy dem muy dem waaw baay bala ne Cerno Bachir gërëm na ko fekke na ko mu romb def leen ni boo seenee Cerno Cheikh muy dem muy dem waa Cerno Baay bala na Cerno Bachir gërëm na ko fekke naa ko moroom bay naa la ana soppe Cerno Cheikh sama waaji def leen ni daa jël njureel jënde loolu moo ko may tay li mu am li mu gërëm na ko fekke naa ko fekke naa def leen ni daa jël njureel jënde taalibe jënde taalibe loolu ah. moo ko may tay li mu am may li mu am Cerno Bachir gërëm na ko fekke naa fekke naa ko Cerno Cheikh Omaro Omaro Omaro def leen ni Serigne Abdou gërëm na la gërëm na la waaw Serigne Mbaye gërëm na la gërëm na la waaw taw Cerno Bachir way na la Cerno Cheikh Mbaye Cerno Cheikh Sëriñ Abdou ñaanal na la ñaanal na nal Sëñ Babacar Mansour ñaanal na la këri diine nal ñëpp ñaanal nanu la Cerno Cheikh Omaro Omaro Omaro def leen ni Sénégal xam nañu la. xam nañu la waaw Amérique xam nañu la. xam nañu la. adduna bi umpule wuñu la yo Cerno Cheikh. manu yi na la Omaro. Omaro. Cerno Sénégal xam nanu la Amerika xam nanu la adduna bi ëmpule wuñu la yow Omaro Omaro Omaro def leen ni Sénégal xam nañu la xam nañu la la xamoon nañu la àdduna bi ëmpule la yow Omaro man way la Omaro Omaro Omaro man la def ni ñaan naa la kon may ma bor alima la ñaan xam naa ko naa ko naa la kon may ma maam Cheikh Omar bëgg maam Cheikh Omar ana alfalaari kon yëngu leen ñaan naa la kon may moo lima ma la ñaan xam naa ko ñaan naa la kon may moo maam Cheikh Omar Omaro Omaro Omaro Cerno Bachir ñaan naa la kon may ñaan xam man ñaan la kon may ma maam Cheikh Omar may naa la Cerno Cheikh sama waaji Omaro ay Cerno Cheikh ñaan naa la là கண்மை மலைமலையான் கம்னாகும் மன்யான் கண்மை மாம் சேகோ Anu nyebut ke Cerno Syekh Tahu sao mà Cerno Syekh sama là nala Kon maimah mình li mà là nhan na cô nhan na là con mấy mà mam che không ở bên